def leen nii seen loxo wax leen ñun ay jullit lañ yàlla mooy sunu boroom muhammad mooy sunu yonent alquran mooy sunu téere lislaam mooy sunu diine jullit jullit yi jullit yi ñooy sunuy bokk allahu akbar rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla na nu yàlla may dund gu barkeel yàlla nañ fekkee déwén te weesu ko toogoon nañ fi daaw ñaanoon yàlla fekke ren na nanu ba ñu bari ñun fekk ren yàlla na nañ fekkee déwén te weesu ko ñu ko fekk woon daaw te wóote ko ren ñetti tukki yàlla na ñibbisi ci jàmm ña ca feebar yàlla na yàlla saafara leen ca faatu yàlla na yàlla yërëm leen te boole ca yaayu nogay yaayu nogay démb la faatu ñëwoon na ba si buxutaan doon ñëw ci conférence bi yaayam faatu mu dëpp maire yaa ma yàlla ko yàlla yërëm waaye yërëmal leen ñi ngeen fi xam teñ faatu ak ñiñ fi xamul ak ñiñ fi bokk xam yàlla yàlla yërëm ñépp te dellu si ni beneen yoon kon ci suñ jotaay bi yal na yàlla yokk ci barke jaajëfal al sas Ahmed Dam maa ngi koy déy léegi naan ko Serigne Cheikh neex na booy wax li ngay wax moom daf koy comprendre waaw maanaam yéen a tolloo fréquence <laughs> te bëri na ci moroom ndax buñ fi jóge commentaire yi ci ngay xamee ni yaa quelque sos kon niñ koy baaxoo ñu defee mooy bu defee waxtaanam ci suba gi bu ñëwee ci ngoon gi ñu jéem a def li ci tege bu nu jullee tàkkusaan ba ñëw ma taaja boon bu ñu taaja boonee ba daaneel daaneel kàddu bi ñëw ci recommandation yi ndax ndax ndax dafa bokk ci liy jekk-jekkal liggéey bi am na ci lool maa ko moom waaye li ci ëpp yéena ko moom loolu nag bu ñuy jeexal incha allah daañ ci ñëw ci tomb yooyu duma ñëwaat nag ci yi sëñ Mbàkke lim ci délégation damay daal di dugg ci waxtaan wiñ ma sant te mooy xaajub ñaareel bi ci siiwalukaay yi siiwal yu baaxul yi ñu ne ma mën naa jël tombub ñaareel bi doon nga ko junj léegi muy bi ñuy wax ngóor jigéen bi ñuy wax ngóor jigéen incha allah siiwal dama ni tomb bu gàtt ci liñ tudde ay siiwalukaay xëy na tey ñu leen tudde ay média sunum réew dañoo wax ne média yi ñooy jëli xibaar yi yët ko nit ñi boo xasee xëy rajo boo taal ay xew-xew la lay wax télé boo taal ay xew-xew la lay wan buñ noppee ci xebaar yi xew-xew yeeg yooyu dugg ci yeneen bu njëkk na boo naree def mécc moomu dañuy xam ne man nga ci làkk yi nga koy bëgg a def bu dee tubaab ñu xam ne dégg nga tubaab bu dee wolof ñu xam ne dégg nga wolof dégg wolof nag tekkiwul mën a làkk wolof dégg wolof mooy xam kan mooy wolof ak ñan ñooy wolof xëy na dégg tubaab moom mooy nga mën a làkk di rouler r yi di taxaw ci virgule yi wala di noyyi ci virgule yi di taxaw ci point yi loolu moom xëy na nattkat yi ñoo koy mën a natt waaye bu école boobu defatut lim doon def dootuñu formeeti ay journaliste professionnel te te mbirum amateur fu mu dugg rek lay yàqu ëpp lay defaru alxuraan daf ñoo joxoñ yaay lu si ne amunu ñun ñëpp nu wujj sunu borom loo nuy doye mu ne in jaakum faasiqun bi naba fatabayyanu fu ngeen jégg euh, euh, xibaaru amateur fatabayyanu da ngeen ko topp seet ko ba xam ndax ki nekk amateur léeg-léeg information bi muy joxe mën naa am mu nekk bu sensible ci wolof te sensible ci tubaab bu déggee wolof dana xam ne bii dafa sensible mu xam ndax léegi joxe ko jot na walla weesu na mbaa xewi na ndax xibaar bu xewi joxe ko amul njariñ lu ñëpp xamut jarta wax mbaa loo ci wax doy na mooy waral léeg-léeg nga dégg ci way netti lii koo xam ne làkk wi muy sottee journal bi déggut làkk wi muy làkk wolof loolu nag dana ko dugal ci léeg-léeg mu am benn xibaar xibaar bi nit ñu soxlawuñu ko waaye mu jox leen ko junj ko ko léegi léegi léegi léegi envoyé nit benn benn vidéo nga ne càpp di seetaan fekk moom mi la ko envoyé bëggul ci nga am ci njariñ déedéet daf cee bëgg ay vues bu amee barab sàngam ñi joxe xaalis yi am nga fa nangami euro boo ko sottee ci suñu franc fa nangam lay tekki ko kon day sànni rek léeg-léeg sax nga ku ne la ku envoyé audio bi juróom fukkint ak juróom sa aajo faju moom la ajoom di faju moom mi am ay vie waaye yow moom sa ajo du fajoo ci envoyé ay audio man nag yàlla daf maa dimbale ba nga xam ne oustaz daam ak ma cee noppalu ndax boo jàngee wala asri sëñ Mbàkke temps bi nga desee ci su dund gi doo ci xajal ay audio yoo xam ne treize minutes douze minutes quatorze minutes nga bëgg cee yendu doo dem doo am temps kon kon kon média yooyu nag ci pénc mi nun ñu ñu tuddee xeet bi léeg-léeg ki koy def bu la rawut bu la rawut du la jëriñ dafa laa war raw ci xam-xam bi mu koy sottee raw la ci jikko ji mu koy defee xam jumtukaay bii mu yor ban la ndax micro du du bébé micro mbàkke du bébé micro vieux la wala micro màggat la dafay yàgg avant ñu am indépendance la fi micro yi nekkoon ba dimb moo tax boo toogee ci wax ci micro rek loo wax rek duñ wax ni diwa ko wax micro baa ko wax yow mi yor micro bi nag xamal kon li nga ci sotti lu mu doon yëgal ñi lay déglu ñan lañ te bañ a blessé peuple bi mbokk yi yooyu nag ñooy siiwal li bëgg mu siiw ñooy wax wax peuple bi li xew barab sàngam ndox ma bari na nit ñaa ngay xuus xibaar yooyu ñu ñëw nag ci suñu tomb nu wax ñu ne média yi siiwal yooyu nga xam ne xam ne xam ne lu nu jot rek la waaja ne woon du nu netti li waaye lu ñu fekk mu siiw mën na ko léegi nga netti ñu ne ma naa waxtaan ci benn pàcc bu tudd ngóor jigéen wax nga dëgg man léeg-léeg nit ne ma borom ñaari tur yi ma ne ko ak bëri ci réew mi borom ñaari tur ak ci réew mi ah, ah, ah. waaye kon kon du borom ñaari tur mooy góor gu nangoo am jëkkër góor jigéen mooy góor gu nangoo am jëkkër walla góor gu nangoo am jabar ju góor maaleykum salaam léegi naa benn président ci Afrique dañ ne ko léegi da yoonal góor jigéen mu ne waaw mën na nekk mais nag yow mi koy wax nga nekk sama femme mu ne ko tax nga may saaga mu ginnaaw dañoo bëgg yoonal góor jigéen kay nekkal sama jabar mu ne ko na lu tax nga di ma ko wax nag mu ne ko yaa ma njëkk saaga